mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yim ñu dajaleel ñuy dund ci biir weeru koor waaye di dund it ca fukki guddi ya nga xam ni ñoom ñoo ca mujj loolu nekk ay ngëneel ci biiri ngëneel bu wërsëgoon ñu it ñu ngi nii toog ci néegam fas yéene jàngub téeréem yal na yàlla subhanahu wa taala boolu ñu nangul ñu ngi nekkoon ci suratul maida di saaru màgg woowu nga xam ni lay mujjug taxawaayu jullit ci biir suuf lu ci bari moom lay jàngale ndax dafa ñëw di mottali ay yeñ man suuxal loolee kon muy wañee jullit war na ko ittewoo bu baax ñu ngi ci jëloon juróom fukki aaya ñëw tey sunu juróom ñaareelu daje ak saar wi di war a jël juróom fukkeelu aaya bi ak benn ci suñu borom di waxe ni yaa ayuha alladina amanu la tattaxisu alyahuda wannasara insha allah bu dee cheikh ousmane pare na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فدعا الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حرقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu boroom subhanahu wa taala mu ne yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm laa tattaxisu alyahuuda wannasaara awliyaa bu leen jël yahuud yi ak nasaraan yi doon ñu ngeen di féetewoo baaduhum awliyaau baad lenn ca ñoom ñooy féetewoo la ca des wa man yatawallahum minkum képp ku leen féetewoo ci yéen fa innahu minhum ku mel noonu day ca ñoom la bokk inna allaha la yahdi al qawma alzalimin yàlla day du jubal xeetu tooñkat fa tara allazina fi qulubihim marad ci noonu ngay gise ñi nga xam ne seen xol yi feebar da caa nekk yusaari'uuna fiihim ñu nekk di jëkkante jëm ca ñoom yaquluuna naxsha an tusiibana daa'ira ñu ne ñun kat dañoo ragal mu ñuy dal la nga xam ne mooy wëlbatikoog jamono fa ansa allahu an yatiya bil fath su neexee yàlla de mën naa indi ak ubbee aw amran min indi wala mbir bu jóge ci moom fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim naadimin ñu xëy ca lañ doon nëbb ci seen bakkan doon addi ñu koy rëcc wa yaqulu alladina amanu ci noonu lay waxe ñu gëm a haulaai alladina aqsamu billah ama ndax ñii ñoo doon waat ci yàlla jëhda aymanihim la gën a tar ca la nga xam ne mooy seen waat ya innahum la maakum ni ñoom day ñoog yéen jullit ñee far xabitat amaluhum neen na màbb na la nga xam ne mooy seen jëf ya fa asbahu xaasirin ñu mujj doon ñoo xam ne ñu perte lañu mbokk ba ñuy dal saar bi waxoon nañ leen mooy saar bi ëpp yaa ayuha alladina amanu ci alquran benn page bi nga tiim rek suñ boroom woo nañ ci ñetti yoon mi ngi noonu woote bu jëkk bi suñ borom mu ne ay yéen jullit ñi ñii nga xam ne ay yahud lañu ak i nasaraan bu duñ leen jàpp doon leen ñu ngeen di féetewoo féetewoo googu mooy di leen dimbinikoo def leen ay kóllërey heure bu ngeen jàqee dem ci ñoom heure bu ñoom jàqee ngeen dem jàppale leen loolu yi lañuy tuddee munasara jàppalente ci wàllu dimbal amma su dee ne ay yahud ak nasaraan bokkuñu ci yahud ak nasaraan yiy xeex lislaam bu dee jëflanteeg àdduna nii rek ci kaw suñu borom bañu ko laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin walam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin ñi nga xam ne xeexuñu lislaam da ngeen dëkk ak ñoom ci jàmm suñu borom mën a mën ngeen leen laaye biir mi ngi noonu yërëm leen di leen sarax di leen jàppale di liggéey ak ñoom ila axiri julit terewuñ ko sax mu am chefu chrétien wala chefu juif boo xam ne moo ko chef ci wàllu liggéeyu àdduna amaa nag bu dee farandoog diine farandoog jàppalente ngir xeex loolee lu mel noonu suñu borom mu ne jullit du ko def ak yahud jullit du ko def ak nasaraan ndax borom bi nee nañu yahud yi ak nasaraan yi duñu leen kontaan ci yéen lu dul da ngeen a bàyyi seen diine fekk si leen ci seen biir diine walan tarda anka al yahud wala nasara xatta tattabia millatuhum loo leen mën a defal fii ak bàyyiwoo sa diine ñëw seen diine kontaan nuñ ci yow looloo taxit yow sa relation ak ñoom dafay limité ci la jëm rek ci wàllu àdduna kese borom bi nag ne ñoom day ñuy féetewoo la ca des ca loolu mooy contre jullit ñi waaye bu dee yahud yi seen bopp dañ ne laysat nasara ala cheyin yahud yi nee nañ chrétiens yi nekkuñu ci dara wa qalat nasara laysat yahud ala chey nasaraan yi ne cré yahud yi nekkuñu ci dara amma nag bu dee xeex lislaam moom ñoom ñépp d'accord nañu jàppante loxo ngir xeex lislaam mooy seen noon bi ñu bokk borom boobu nag ne képp koo xam ne da ngaa bañ a féetewoo jullit ñi xanaa dem féetewoo ak chrétien yeeg yahud ya suñ borom nee na ca ñoom nga bokk loolu moo tax ba mbokk jullit du def lenn loo xam ne ku ko gis di ko jaawalee ko chrétien wala yahud ci lenn loo xam ne ñoom dañ koo jagoo ci seeni diini wala seeni aada wax naa la sànq ne lu jëm ci liggéeyu àdduna jëflante àdduna yàlla terewuñ ko amma loo xam ne aada yahud la seen culture loo xam ne seen diine la képp koo xam ne jàppanal leen ca topp leen ca suñ borom nee na yàgg yow léegi ñoom ca ñoom nga bokk fa innahu minhum mu ne nag moom du jubal la nga xamee ne mooy xeet boo xam ne dañuy tooñ ca bokk na ci tooñ yow julit la yàlla teral yow la yàlla yëkkati mu ne fa lillahi al izza wa li rasulihi wa lil muminin yow la yàlla jox personnalité nga wëlbati ko xeeb sa bopp dem def sa bopp ab chrétien wala yahud di leen roy ci seen melokaan seeni coleen seeni aada ci seen diine yow ko mel noonu kenn gënu la tooñ lii nag bi mu amee yonent bi doon ko jàng ci biir madina yahud yu bon yaa nga fa nekkoon seen njiit mooy abdullah ibnu obay daal di ne ah ñun kat kóllëre gi ñu am ak suñ mbokk yahud yi duñ ko dindi ndax àdduna wóorul ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy ñëw madina dafa fekkoon giiri arab ya fa nekk dëkk fa ak ay giiri yahud giiri arab bu nekk am benn giiri yahud boo kóllërenteel loolu taxoon na ba sax léegi-léeg arab yi daan xeex seen biir yahud ya jóge fële ñëw ñii farak ñii ñëw ñee farak ñee ñëw ba ci biir xeex bi yahud man cee rey sax moroomu yahuutam loolee ñu ni ñoom kat loolu duñ ko dindi moom la borom bi di wax nag ci noonu ngay gis ñi nga xam ne seen xol feebar daca nekk di jëkkante jëm ca yahudi jëm ca yahudi ak nasaraan ya mbokk feebaru xol bari na lool doonte ne ni ci ñaari wàllu lay seet lay séddili ko mooy li ñu tuddee maradu shubha feebarug lënt am na koo xam ni ku bëgg a jaamu yàlla la mais malheureusement dañ koo nax gëmloo ko ni diw mii day boo ko yaakaaree loo doon soxla ci yàlla mën na la ko defal yàlla day kenn du ko jaamu direct fokk nga jaarale ko ci nii ñooñu la ñuy tuddee subuhaat ñu mel noonu dañ leen war a jàngal war leen a xamal ngiree feebar boobu deñ ca loolu lu ëpp ci julliti tey feebar boobu mu nekk seen biir xol mooy bëgg nañ jaamu yàlla mais malheureusement xamuñu naka la ñuy jaamu yàlla mu ngi noonu mu am nag beneen feebar bu ñuy tuddee maradu shahwa muy ashahwaat koo xam ne moom bànnee xam mooy feebaru xolam ay li yàlla bëgg lépp xam na ko li yàlla bañ lépp xam na ko waaye bànneexu bakkanam moo ko yóbbu ci muy def la muy def bu dee ko mel noonu moom dañ koo war a waar xupp ko ragalloo ko sawara ragalloo ko mbugalum yàlla ca ñii yàlla di waxal loolu moo nekkoon seen melokaan muy naafiq yi naafiq yi dañ daan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di na ko ñun day ñi ngi waat ci yàlla ne nashhadu innaka la rasulullah dëgg dëgg yaay yonent bi yàlla bi waaye bu ñu fa jógee topp seen bànneexu bakkan borom boobu nag ne ñooñu nga xam ne seen bànneexu bakkan la ñuy topp day ñu nga naan déet àdduna wóorul tey di ñu noonoo feek yahud yi ëllëg ñu xeex ak yonent bi gañe ko ñun dootuñu am pexe déedéet ñun daal dañ ànd ak jullit ñi waaye duñu coupé suñu relation ak yahud yi borom boobu ne waaw xanaa xamuñu ne day yàlla day bu ko neexee indi ndimbalam jox ab yonentam mu noot mboolem la nga xam ne moo ko wër wala mu indi mbir moo xam ne dafay bawoo ci moom rek su ko defee ñoom ñu xëy ca lañ doon nëbb seen bakkan doon ñu koy rëcc ca mbokk bi aaya yi di wàcc madina amoon na fa ñetti giiri yahud yu fa nekkoon bani xuynaqa bani nadir ak bani xurayza ñoom ñépp suñu borom yàlla ci ay sabab génne nañu leen madina mi ngi noonu amma bani xurayza ñoom ña mën a xeex ci ñoom ñépp dañ leen a rey jël seen njaboot def leen ay jaam ndax trahison bu rëy bu ñu defoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bañ comploté ak waa makka ci ne dañuy xeex yonent yàlla bi loolu nag ba mu amee naafiq yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ne àdduna wóorul fokk ñu collaborer ak yahud yi da ngay gis ne gàcce dal na leen jaaxle dal na leen loola tax jurit ñi naan waaw xoolal ñii doon waat dëgg-dëggi waat ne ñoom kat ñoo julit ñee far fekk ni ñi ngi nekkoon di jëflante ak yahud yi ñii day seen jëf lépp màbb na ñu xëy suba doon ñoo xam ne nii ñu perte lañu na am loolu mbokk xew-xew la bu amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nga la way yow julit ragal wëlbatikoog jamono bu mu tax mukk nga noonoog ña nga xam ne say mbokk julit xamal ne suñu boroom lépp ci moom lay dellu amul lenn loo war a ragal ëllëg lu dul lay jóge ci yàlla subhanahu wa taala lu dul looloo boo ko defee da ngay gis ak rëccu te dana la dal comme ni ko suñu borom nettali ci yahut yu bon yi ni waaw ci nafiq yu bon yi nga xam ne au lieu ñu ragal yàlla yaakaar yàlla ñu ne dañuy xarale far fii far fee gis ngeen la nga xam ne moom lañ mujjee mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين بارك الله فيك سني بروم جل وعلا مني يا أيها الذين آمنوا ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm man yartadde minkum an diini koo xam ne dafa génn dellu gannaaw bàyyi diineem muy murtad fa sawfa yati llahu bi qawm yàlla day xelse naa indi ci xeet boo xam ci xeet yuhibbuhum wa yuhibbuuna yàlla dana leen bëgg ñoom ñu bëgg yàlla azillatin alal muminin ñuy suufe lañu ci jullit ñi gëm yàlla aizzatin doon ñu tedd alal kafirin ca ña nga xam ne dañoo doon ay yéeféer ñu nekk ñu am kattan ci not ci ñoom yujahiduuna fi sabilillah dañuy jihaad ci yoonu yàlla wala yaxaafuuna lawmata laa'im ca duñu ragal yedduk aji kuy yedd dalika fadlullahi yutihi man yasha lii nag mooy ngëneelu yàlla da koy jox ku mu soob wallahu waasiun alim yàlla day ku yàlla ku xam la innama waliyukum allahu wa rasuluhu seen féete day mooy yàlla ak yonenti yàlla wallazina amanu ak ñi nga xam ne dañoo gëm allazina yuqimuuna alsola ñooñu nga xam ne dañuy taxawal julli wa yu'tuuna zaka ca dañuy joxe azaka wa hum raaki'uun ca ñoom day dañuy ruku wa man yatawalla allaha wa rasula ku féetewoo yàlla ak yonenti yàlla walladina amanu ak ñi nga xam ne dañoo gëm fa inna xisballahi humul ghalibun la nga xam ni mooy parti bi yàlla day ñooy parti bay not yaa ayuha alladina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm la tattaxidu alladina taxadu diinakum bu leen jàpp ñi nga xam ne ñoom dañoo jàppe seen diine ji huzuwan lu ñuy yëj wa laiban ak lu ñuy fowe min alladina utul kitaaba min qablikum ci ñi nga xam ne dañoo jotoon téere jiitu leen wal kuffaar ak ñi nga xam ne dañooy weddi bu leen leen jàpp mukk awliya ñu nekk seeni péete wattaqullaha in kuntum muminin ragal leen yàlla su dee nekk ngeen di gëm yàlla mbokk suñu boroom dañuy wax ci ni képp koo xam ni génn na ci diineem ji xal na yàlla subhanahu wa taala musul ñu ci waaye bu ko yàlla waxee it day fekk ni luy mën a am la mbokk ki murtat ci diine mooy koo xam ne jurit la woon imma dafa juddoo ci lislaam dañuy jàpp ne ab jurit la fi yëg gisuñu ci moom lu ko génne ci diine bés bu dee dañuy jëflanteeg moom jëflanteeg jullit wala boog mu juddoo ca ca doga ñëw tuub dugg ci lislaam keroog ba mu tuubee dañuy jàpp ne jullit la ñooñu nag suñu borom nee na képp koo xam ne dellu na ci gannaaw murtad bu doonte ne ni luwab lislaam mi ngi fi kuñ xam ci moom loolu dañu lay woo tuub loola nga reconnaître say bakkaar reconnaître nga ni da nga saxaat ci diine bu dul looloo dañ lay rey yonent bi alayhi salaam daan wax ku soppi diineem dañ koy rey mi ngi noonu loolu nag mbokk julit borom bi subhanahu wa taala da ngay gis lu bari tey natt bi mu ñu ci nattu jafe na nga gis jullit dëgg mu wëlbatiku nekk chrétien loolu jafe na trop la nga gis kay mooy année bu nekk des centaines de milliers de chrétiens ñooy dugg ci lislaam waaye mu am beneen natt bu ñu yàlla nattoo muy lu ñu tuddee la franc-maçonnerie lu bari suñuy ndaw da ngay gis ne su dee dañu nekk ay intellectuel nekk borom xel yu rëy ñooñu nga xam ne ñooy franc-maçon yi jàpp ne àdduna ñoo ko war a doxal fokk ñu am jokkoo yu ñu jokkoo ci yow ba léeg-léeg ñay wax wax na ñoom waxuñu dañ lay won ne jafe na lool nga gis lu bari ci ay président de par le monde lu dul fekk ne jaar nañ ci biir maçonnerie loolu nag mbokk ñi ngi koy yóbbante suñu mbooli mi ndaw képp koo xam ne daf lay woo ci ay promotion yu gaaw képp ku lay woo ci ubbil la ay bunt xamal ne buntu xéewali yàlla rek ko yor xamal ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala lu mu tuddul ci yow kenn mënu la ko jox ngalla waay sa diina na la jaral lu nekk amma nag boo demee borom bi ne képp ku génn ci diine ji yàlla dana indi ñeneen ñoo xam ne nii seen màndarga mooy yàlla da leen di bëgg mi ngi noonu ma nga fay wax feneen wa in tatawallaw yastabdil qawman gayrakum summa la yakunu amsalakum suratu muhammad ala kulli xaal mbokk suñu borom nee na bu ngeen demee danaa indi ñeneen ñoo xam ne yàlla dana leen bëgg ñu bëgg yàlla te bokk na ci mandarga mbokk ne yàlla bëgg na la nga xool yow nan nga bëggee yàlla heure boo demee ba yéeg ni yàlla suñu borom day moo la gënal leneen lu dul yàlla waatal na yàlla bëgg na la mi ngi noonu waatal na yàlla bëgg na la loolu tax yàlla jiital mbëggeelam doo ko indi suñu mbëggeel boo demee ba yàlla gënal la mboole mi alali àdduna gënal la say waajur gënal la sa bakkan gënal lu mu mën a doon mooy da ngay xam ne yàlla bëgg na la yàlla subhanahu wa taala mbokk pour mu bëgg la day fekk ne da nga koo jibbalul nangul ko lépp loo xam ne xam nga ne ndigalam la doo ko jënd ndigalu kenn luy terem doo ko jëndee terey kenn loolu tax mu ñëw ci xadisul qudsi suñu borom ne yonenti yàlla bi sama jaam bi jege wu ma lu ma gën a bëgg farata yi ma ko gàll yow mi bëgg yàlla bëgg la xamal ne mënoo koo defal lu lu ko gën a neex farata yim faratal ci yow mu ne gannaaw ba mu defee farata yi nag du deñ di góor góorlu ci naafile ba ma bëgg ko waaw ki yàlla bëgg luy màndargaam ndax mooy gis nañu ne kat mbooloo mu bëri topp nañ ko foo ko gis mi ngi toroxlu wala mi ngi kaza wa kaza mbokk ki yàlla bëgg yonent bi alayhi salaam leeral na ko ci waxi yàlla ñu xadisul qudsi suñu borom ne sama jaam day su ma ko bëggee man may doon noppam yi muy dégloo dootul nangoo déglu lu dul lu neex yàlla may doon bëtam ya may gise doo ko fekk mu toog di seetaan lu dul lu neex yàlla ida marru bi laghwi marru kirama lépp ay caaxaan buñ ko gis dañuy romb romb bu tedd may doon loxoom ba muy jëlee ko joxe lépp lu yàlla xaraamal du nangu mu teg ci loxoom bi fépp fu yàlla daganal lay delloo alalam fu yàlla xaraamal du ko fa def mu ne it may doon tànkam ya muy doxe ay jéegoom yi du ko yëkkati di jëme lu dul fu neex yàlla suñu borom ne ko mel nii su ma ñaanee danaa ko may su sàkkoo xette lu ko ci man danaa ko xette bi loolee kon bokk mooy mandarga ku yàlla bëgg mooy koo xam ne gis nañ ko mi ngi sax ala siratul mustaqim doo ko fekk lu dul ci neex lu neex yàlla loolu mooy mandarga bi yuhibbuhum wa yuhibbuuna mu bokk ci it beneen mandarga bu yàlla feeñal mooy ki yàlla bëgg mu bëgg yàlla day bëgg képp kum jàpp ni ki yàlla bëgg na ko ca yàlla ñan la bëgg mooy julit ñi looloo tax kum jàpp ne gëm nga yàlla rek day suufe ci sa bopp am ci yow yërmaandi azilla boobu mooy yërmaandi xam na suñu borom di waxee rek waajur yi waxfit lahuma janaaxa zulli min arrahma wàccal leen laafu yërmaandi julit mooy kii suufee ci moroomu julitam looloo tax yonent bi alei salatu wasalaam ni foo toogeeg mbokk dajeeg mbokk julit ngal la way nuyu ko ñu ngi noonu mën na am yaa ko ëppale léppi àdduna ëppale ko lépp waaye yaa ko romb nuyu ko toog nga ak moom mu daal di tissooli sant yàlla nee ko yàlla na la yàlla yërëm heure boo xamee ni nii am na soxla ba woolu la nga la way wuy jikko heure boo xamee feebar na solal saw dall dem seeti ko heure boo xamee ni nii ñëw na di la sàkkulaayu biir xoolal la nga xam ne bu doon moo bu doon yow noonu ngay def nga laayu ko biir loolu heure boo yegee faatu na solal sa dàll gunge ko lii mooy yërmaandi bi jullit ñi amalante seen biir ay azillatin alal muminin amma ku ñu yëg ne kii kat noonu bi yàlla la fettiir lu ne di xeex dina yàlla ji di kaafir suñu borom mu ne moom day tedd ci kawam ca mbokk julit du suufe mukk ci kanamu yéeféer ndax day xam ni kii maa ko gën su mën nañu wax leen ko fii jox nañ leen ci exemple yu bari bañ koy commencé ñoom Reagan jaar ci ñoom Bush jaar ci ñoom Obama ba tey ñu ngi ci dof bi nga xam ne moo jiite Amérique muy Trump li ñu leen di wax mooy jàpp nañ ne ki gën a pauvre ci suñu jàkka jee tey suñ ne ko woon kaay ñu jox le pouvoir Donald Trump nga jiite États-Unis avec ses milliards yi ko yàlla jox ca nga génn ci lislaam day bañ ndax xam ne ne mi ngi lu gën loolu am déet loolu mooy teddaa nga jullit jullit da ngay jàppale kaw suuf yaa fi ëpp daraja yaa fi ëpp lu nit di am loolu doo ko jënde dara mi ngi noonu aizzatin alal kafirin borom bi nee na ñu mel noonu yujahiduuna fi sabilillah dañuy jihaad ci yoonu yàlla mbokk sabilillah mooy yoon bi yàlla tëral ni lii laa bëgg nit ñi jaar ci mooy yoon ba nga xam ne it mooy jëme ca yàlla yàlla fan la ñu woo jëme muy aljanna dañuy jihaad ci yoonu yàlla ci seen alal ci seen bakkan ci seeni pexe ci lépp nuñ ko mën a defee donte ne jihaad ay forme yu bare bare bare bari la xëy na ba ci gën a kawe mooy jàkkaarloog noonu yi di xeex ak ñoom mais loolu étape supérieure la boo xam ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent des jullit amuñu kàttan yegg ci foofu borom bi nag nee na jaamam yooyu mu bëgg day boo demee da ngay fekk ne du ñu ragal yeddaange ku leen di yedd mooy lii la yàlla santaane nga koy def seetatoo ci bànneexu ndey bànneexu bàyyi bànneexub sëriñ bànneexub général d'armée bànneexub kum mën a doon ci jaami yàlla yi amul kenn koo xam ne ruus ga nga ko ruus ragal ga nga ko ragal cër ba nga ko jox dana tax nga def li yàlla xaraamal wala bàyyi li yàlla faratal ci yow laa yaxaafuuna lawmata laa'im mbokk lii mooy màndarga yi wane ni jaam bi de yàlla bëgg na ko mu nekk nag mbir moo xam ne wax koo gën a yomb jëfe ko moo tax suñu borom ne ngëneelu yàlla la moo koy jagleel ku ko neex ci ay jaamam yàlla mooy ki yaate xam yàlla nañu boole ci jaamam yam jagleel loolu li nga noonu te ku mel nii mooy ki dajale te danga àdduna te danga àllaxira borom bi daal di wëlbatikuwaat ne ay yéen jullit ñi ci ngeen di war a séetewoo mooy yàlla ak yonent yàlla ak jullit ñi gëm ca bopp page bañ jàng mu ne bu leen féetewoo ak yahud yi ak nasaraan yi ak kon yàlla ku ñuy féetewoo mu ne seen péete mooy yàlla seen péete mooy yonent yàlla seen péete mooy jullit ñi nga xam ne dañoo gëm mi ngi noonu yàlla jullit ñi gëm mooy ñan mu ne mooy ña nga xam ne dañuy taxawal julli di joxe azaka muy wañu ne mbokk képp koo xam ne du julli du joxe azaka moom mooy wax ne gëm na waaye pour yàlla moom gëmut pour yàlla moom gëmul allazina amanu mooy allazina yuqimuuna salaa wa yutuuna zaka ñiy taxawal julli joxe azaka borom bi jël benn mandarga bu mag ci julli ca mooy wahum raakiuun mi ngi noonu comme nam koy waxe ca Maryam warka ima arraakiin doomu aadama da ngay gis ne bu taxawee mi ngi teddaangeem mais heure bu rukkoo loolu lu muy wane mooy am na koo xam ne kum nangul la muy boromam subhanahu wa taala loolu la borom bi wax ci wàllu googu doonte ne kenn du ko firee ne ci sa biir rukkoo ngay génne zakat di ko joxe déedéet mooy dañuy taxawal julli di joxe azaka te seeni mandarga da nga leen di gis ñuy rukkoo roko boo xam ne jubluwuñ ci lu dul ngéneelu yàlla yañ cee faggu ak ngërëmal ak ngërëmal yàlla comme na nga koy jàngee suratul fath mooy wallazina ma'ahu ca muhammadun rasulullah da nga leen di gis tarahum rukkaan sujjada da nga leen gis ñuy rukkoo ko sujud yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana bokk borom boobu subhanahu wa taala nag ne képp ku féetewoo yàlla féetewoo yenente yàlla mënuñuy féetewoo yàlla ak yonent yàlla mooy ndigali yàlla ak ndigali yàlla doo ko jënd ndigali keneen ku dul ñoom tere yàlla ak tere yonent yàlla doo ko jënd tere keneen ku dul ñoom képp ku féetewoo yàlla ak yonentam féetewoo jullit ñi ci ak farandoo nañ xam ne day mbokk loolu mooy parti bi gagné fa inna xizballahi humul ghalibun parti bi yàlla ñooy gagné xam leen ni parti ci arab mooy xizbu Sénégal dégg naa am nañ trois cent parti ñu ngi noonu waaye mbokk na nga xam ne parti bi gagné adduna ak alaxira muy parti farandoog yàlla farandoog yonent yàlla loolu mi ngi noonu farandoo ak la nga xam ne muy jurit ñi ci lii day wane ne mbokk loole ma nga jóge ci ay xalaat yu bokk la xalaati lislaam islaam julit yépp waroon a bokk benn parti bokk benn jubluwaay lu waral loolu mooy jullit benn bëgg-bëgg la am benn yaakaar la am mooy xam nañ ne lenn da nga ko mën a suivi àdduna ak àllaaxira mooy topp ndigali yàlla looloo tax ba parti bi l'islam la nga xam ne mooy constitution baak règlement intérieur baak droit yaak lu ñu mën a wax mooy dañuy teg téere bi yàlla bi teg sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la ñu gis ne mooy suñu jubluwaay loolee da ngay gis ne ah ña farak ndoog ñooñu suñu borom nee na ñii rek ñooñu ñi nga xam ne ñooy ñiy gañe borom bi nag wëlbatikuwaat ñetteelu woote bu ñuy woo ci benn page daal di ne ay yéen jullit ñi bu leen jël ñi nga xam ne ñoom seen diina ji saboote dong lañ koy defee lu ñuy wax ci lislaam mooy di nettali di leen saboote di leen yëj ca mooy ñi nga xam ne chrétiens yi lañu ak yéeféer yi ngalawaay yi ragal leen yàlla su dee ne gëm ngeen waaye mbokk loolu yàlla wax ni juif yi chrétien yi yéeféer yi dañoo jël diine lislaam diine joo xam ne lu ñuy fooye rek la ak a neexoon jullit yi ñoom ba ñu jël seen diine daf ko am pom ba ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala gis nga diine ji def ko pour fo diine ji dafa am ay valeur yoo xam ne képp ko am xel di ko settantal dana xam ne diine yi dëgg ngi nii diine yi ju tedd ngi nii diine ji war a mën a jiite àdduna ngi nii te loolu la ñuy jàng ci page bi ci tege waaye malheureusement mbokk boo xoolee ñun ëpp ci ñun dañuy dajaloo ne dañuy jaamu yàlla defar tante boo xam ne téeméeri lampe multicolore cinq cent manque ay bandurul jigéen ñi toilette lu ñu amoon ci or ju takk ñëw jàkkaarloo góor ñi di woyaka jaayoo ko fettexu mbokk ndax lii diinay dëgg la laa mbokk lii diinay fola kon ay chrétien ki juif buñ ko gisee dañu xam ne lii du diine dara xool leen jullit ñi nee nañ lii mooy seen diine mi ngi noonu suñu benn waay Ousseynou Fall hafizahullah xam fu mu nekk ci kaw suuf tey nekkul na Kuwait nee na daje yooyu ñu daje fii ci réew mi mu am benn bu mu ci filmé demoon ci ay mbokki naaram tegal leen ko bi nga xoolee ñun waaw ñii lu ñuy def nii ñu ne ah ñu ne dañuy jaamu yàlla ñu ne dañuy jaamu yàlla am dañuy wane ni àddina war a mel ñu de xalaat loolu la ñuy wane dégg nga ca mbokk kon ñu gis ne ñun suñu wàllu bopp li wala fi naan bul bañ ku la tibbal ci gaalu xaj waaye fexeel ba bu la kenn fekke nga cay lekk ñun ba ñu yahudi ak nasaraan yi tibbalee ci gaalu xaj la ëpp ci ñun dañoo dem ñu lekk ca gaal ca mooy loolu ñu jàppal suñu diine ñun ñoo wëlbati ko def ko suñu diine ba wallahi bari na fi ay daje diine yoo xam ne soo ko filmé woon filmé Sorano amul benn différence bal léegi lu bëri ci daje diine yi grand théâtre Sorano lañ ko yóbbu am déet boo ko filmé woon nga coupé son yi déggoo li ñuy wax nga xool ñaari décor yi amul benn différence ay kon loolu mbokk nañu xam ne ba diine bees day yahud yi par erreur daan nañ critiquer suñu diine yi waaye ñun fekk nañ leen ci loolu amaa nag ba diine dëgg nan la diine meloon bisimilah ñu bàyyi Cheikh Ousmane
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون
بارك الله فيك أو سنبرم مني وإذا ناديتم إلى الصلاة سنين دي ووتن تجم تجلي ittaxazuha huzwan wala iba ñu jàpp ko lu ñuy saboote ak lu ñuy foye dalika bi annahum qawmun la yaqiluun li waral loolu day mooy ñoom xeet lañu boo xam ne xamuñu amuñu benn xel qul ya ahlal kitaab neel ay yéen ahlul kitaab chrétien ak juif hal tanqimuuna minna ndax am nga lenn lu ngeen di mën a fayoo ci ñun di ñu ko critiquer illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna lu dul na ñun day gëm nañ yàlla gëm la nga xam ne wàcce nañ ko ci ñun wa ma unzila min qablu ak lañ wàcce woon lu jiitu wa anna aktharakum fasiqun ca ne li ëpp ci yéen day dañoo génn ak topp qul hal unabbiukum bi charrin min dalik ndax du ngeen kaay neel ndax du ngeen kaay mu wax leen lu yées loolu masubatan inda allah la nga xam ne nii moom mooy lay fay gay bawoo ca yàlla subhanahu wa taala ñeel ñooñu man laanahu allah koo xam ne yàlla da ko rëbb wa xadiba alayhi mere jëm ci moom wa jaala minhum alqiradata walxanadir daa di koy def ñu yor jukkoy golooki mbam xuux wa abada taaxuut nekk ay jaami taaxuut ci lépp lu ñuy jaamu ci dul yàlla muy taaxuut ulaika charrum makaana ñooñu day ñoo yiis place wa adalla adallu an sawaa'i sabil te ñoo gën a réere gën jaa digg doomu ca yoon wa ida jaaukum heure buñ leen dikkalee qaalu amanna ñu ne ah ñun day gëm nañu wa qad daxalu bil kufri ca moo ne ñoom day bi ñuy dugg si kéefër lañu indaale wa hum qad xaraju bi ba ñuy génn it kéefër lañu yóbbaale wallahu aalamu bi ma yaktumuun ci yàlla day moo gën a xam la nga xam ne ñu ngi koy nëbboo mbokkoo ba diiney nekk dëgg lu doon nekkoon diine mooy suñu borom nee na su ngeen di wootente jëmi ci julli ñu nekk di leen saboote mbokk wax juri joojee nga xam ne mooy nodd yahud yi lu ñu daan wax mooy dañ daan déglu waa ji nodd su ne allahu akbar allahu akbar laa wax nga dëgg de ashhadu an la ilaha illallah wax nga dëgg de ashhadu anna muhammadu rasulullah ñu ne yaa mën a kàcc waay yaa ngi dégg dégg loolu mbokk lañ daan def almuhim suñu borom yàlla ni dañoo jàppoon ne seen diine ji lu ñuy war a saboote lu ñuy foye la waaye fekk dañoo xelluwul doonte ne mbokk loolu yàlla ne dañoo xelluwul it dal na jullit ñu bëri jullit ñu bëri xamatuñu lan mooy valeuru nodd mbokk ëwwalan xam leen na nodd day ab woote la woote ga pour lan la di mooy kaay leen ñu jullee waay kon mooy convocation boo xam ne mi ngi jóge ci yàlla jëm ci jaami yàlla ya nekk ca lëwër jàkka ja mooy commerce baag kër gaag tool yaag fu mu mën a doon ey waay bàyyi leen li ngeen di def ca ñëw ñu julli si loolu mooy nodd muy valeur ba bu mag boobu muy yëkkati di noddkat bi di ko wax nodd googu jóge ci yàlla mu jóge ci gént goo xam ne abdullah ibnu zayd moo ko gént yonent bi ne ko lii ci yàlla la jóge jàngal ko bilaal aji noddukat ji di yëkkati ay kàddu ee yéen nit ñi xam leen ne yàlla gën a màgg lépp yow mi nekkoon sa service yaakaar fa dara ñu ne la kat ka nga xam ne moo gën a màgg yépp mooy patron bi ak alal ji ngi fi wut yàllaa ko gën a mag waa ji dana ko répété imma ñaari yoon wala sax mu répété ko ñeenti yoon comme da ngeen ko miini ci jàkk yu bëri gannaaw ba mu ne leen xée yéen mbooloo mi man day maa ngi seede ne yàlla dong yeyoo ñu koy jaamu su ko defee kon nga xam ne yow li li indi woon ci kaw suuf kat nekkul commerce bi wala football bi wala tool yi jaamu yàlla ma fi indi woon mu ne yéen maa ngi leen di fàttali ne muhammad yonent yàlla la loolee muy wane ne jaamu yàlla gi it li ma koy bëgg bëgg bëgg du ma ko defee lu dul naka yonent bi alayhi salaatu sam jàngale waa ji baamu waatal la ko ba mu paree la lay wax nag hayya ala salaa kaay leen ñëw ci julli gi du ko wax benn yoon de da koy baamuwaat kaay leen ci julli gi gannaaw bu mu ne kaay leen ci texe gi ay li leen di mën a may texe àdduna ak àllaaxira muy alfalaax loolu mooy julli su paree mu daa di baamuwaat daa di ne allahu akbar allahu akbar xam leen ne yàlla gën a màgg lépp feddaliwaat lam lam lam lam ubbee woon laa ilaha illa allah kenn yeewul ñu koy jaamu ko dul yàlla moo tax gaa yi mas ngeen a dégg woote bu gën a rafet woote bi nga noonu bés ba da ngeen gis ay convocation ay invitation ay nangam waaye ndax bu matali nii ëmb la nga xam ne mooy takbir màggal yàlla ëmb tawxid wéetal yàlla ëmb saxal ak risaala muy yonente bi alayhi salaam ëmb li gën a màgg muy julli ëmb la nga xam ne mooy tax yàlla may ñu texe àdduna ak alaxira ëmbal ñu la nga xam ne tamit mooy tëje ko laa ilaha illallah lii mbokk moo tax ba woote bu rëy la la ko yonente bi alayhi salaam tudde woon ña nga xam ne ñoo koy taxawi ca ñii den leen saboote rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na aji noddukat yi day ñooy ñii gën a gudd baat yowmal qiyaama dana wax ne waa ji taxaw di noddu day lu ko dégg ci nit ak jinne dana ko seede yowmal qiyaama suñ càmm yem foofu am ma continuer ah waaw baax na waaw ala kulli xaal waaw bilal nee nañu yem foofu parce que xëy na bëggul gaa yi xëccoog moom ala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ala kulli xaal mas nay wax ngi ni lu nodd ba mujj benn gaa yi na ko waaw yow mu yàlla yónni da ngaa bëgg dégg bàyyi ñu fi gaa yi reyante ci nodd gi mu ne déedéet na am xëy ni nit ñi buñ ko xamoon bu nit ñëpp xamoon valeuru nodd kon jàkka ju nekk bala ñoo am noddokat dañ koy lotari da ngay téeméeri ñi taxaw ku ñu ne maay nodd ba dañuy lotari doog a am bilaal waaye nag xam leen ne ku dégg aju nodd mu ànd ak moom noddokat bi ne allahu akbar allahu akbar nga la waaye jigéen ñi nekk ca waañ wa ñu nekk ca fóotukaay ba yow ma nekk ca biir katkat ba yow ma nekk ca tool ya dégg nga noddokat allahu akbar allahu akbar yéen waxal allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu anna muhammad rasulullah léegi nag noddukat bi hayya ala salaa daf lay woo mënu laa woo yow it nga koy woo kon bu ne hayya ala salaa looy wax laa hawla wala quwwata illa billah kaay leen ñu julli pexe kattan taxawul julli gën a neexe yàlla yàlla rek ko moom kon laa hawla wala quwwata illa billah kaay leen lay tax ñu texe adduna ak alaxira mooy ñu taxawal julli mooy hayya ala falaax loo cay teg laa hawla wala quwwata illa billah su ko defee mbokk nodd ngi noonu su paree ne allahu akbar allahu akbar nga wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah nga wax laa ilaha illallah lii mbokk da ngay gis kenn moo yëkkati kàddu gi lu mat ay junni digg ko ànd ak moom ñoom ñépp ñu bokk tuyaaba ju rëy joojee mi ngi noonu kàddu ga ngay répété mooy li mu wax lépp da nga koy répété suuf hayya ala salaa nga wax laa hawla wala quwwata illa billah hayya ala sala laa hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala laa hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala laa hawla wala quwwata illa billah nag dugg na nga am ci ñeent yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ku mel nii day boo ko déggee ba pare nga daal di julli ci man nga gën a gàtt allahuma salli ala muhammadin wa sallim loolu sax gàtt na nam gënee nga julli ni ngay taayaa naam mu ne gannaaw ba nga ñaanal ma wasila wasiila mooy place bi gën a kawe ci àjjana la gën a gàtt foo dégg ñu nodd ba pare jullil ci yonent bi ne yàlla yàlla na nga may suñu yonent wasiila amaa nag boo dajewoo nag koo xam ne mën na la koo sax xamal ne ñaan ga ci gën a complet mooy naka suñu yonent alayhi salaam waxe allahuma rabba hadihi da'wati tamma wa salaati alqaa'ima aati muhammadan alwasilata walfadila wabashu maqaman mahmudan allazi waadta loolu mooy ay yàlla borom woote bu matali bi ak julli gii ñu nar a taxawal yal na nga may suñu yonent yàlla muhammad alwasila muy place bu kawe boobee te yal na nga ko dekkal la nga xam ne mooy taxawaay bu ñu gërëm ba nga xam ne yowmal qiyaama aadama nuux ibrahim moussa ñëpp ci gannaaw la ñuy topp ngiree mu ñaan yàlla atte jaam yi maqaman mahmuda bi nga xam ne dégg nga ko ko yonente bi alei salaam nee na ku dégg aji nodd ko nodd nga ànd ak moom bi mu paree nga julli ci man ñaanal ma wasila yowmal qiyaama da nga bokk ci ñu dagan ma ramm leen ñu dem ajjana yàlla na yàlla boole ñu ca mbokk nag lii suñu borom nee na li ëpp ci nit ñi xel wu ñuy nodd ga ak oto bay korne la ñeemale faale wuñu ko sax waaye yow mi am xel nga la way bàyyil ci loolu xel borom bi nag nee na yahud yi ak nasaraan yi xanaa du ngeen kaay ma wax leen lu yées la nga xam ne moom ngeen di sabootee jullit ñi mooy ñun day amul lenn lu ngeen ñu mën a critiquer lu dul gëm nañ yàlla gëm li ñuy wàcce ci ñun gëm la ñu wàcce ca la jiitu te yéen li ëpp ci yéen ay kàccoor lañu xam leen ne li gën a bon mooy seen wàccuwaay ca yàlla mooy ña nga xam ne yàlla da leen a rëbb mere leen def seeni maam ay goloke mbaam xoox def leen ay jaamukatu xërëm ñii day ñoo gën a bon la nga xam ne mooy wàccuwaay te it mbokk jullit aaya yi suñu borom nee na jullit ñi tontu leen ko chrétien yi waaye malheureusement dem nañ ba jamono yàgg ay jullit ñu ni jullit lañu ñooy critiquer ay mbokk jullit ca jaamu yàlla ga ñuy jaamu yàlla moo tax gaa yi suñu jigéen ñi di muuru déggu leen li leen nit ñi di wax des tapis roulants ah lu nekk ñu leen koy wax nekk di lëfër lëfër rek seen kii xanaa ñi duñ yëg tàngaay xanaa ñi nangam nangam xoolal suñu xale yi jël seen colaay di fexe ba colaay gi du dem ba ci romb seeni koste yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ju jullit colam dëgg-dëgg mi ngi yem ci digg yeelam mu ne nag diggante digg yeel bi ba ngaa yegg ci kosten bi dara nekkul ci mbub mi wàcc ba foofu waaye lu romb kosten moom sawara la jëm gaa yi lu ñu leen di wax mooy ñooñu di cëkkal xoolal sa bote googee loolee nga xam ne xatta suñu sëriñ su mag si nekkoon fii seen photo yi ñuy wane xool leen ñoom ñëpp amu ci kenn ku bëbbam romb kostenam waaye lu lépp pour saboote xoolal mbokk lu mel ne ab sikkim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis yu dul jeex guddal leen seeni sikkim safaanoo leen ak yahuudi ak nasaraan yi léegi nga gis ñooñu nga xam ne dañuy yor seeni sikkim xoolal sabote yi ñu leen di sabote loolu ndax ci chrétiens yi la jóge wala juif yi déedéet mooy seen moroomi jullit ya nga xam ne ay faasiq lañu parce que dañoo safaanoo ndigalu yàlla ñoom ñooy critique ñooy def ndigalu yàlla waaye doyoon na ci soxna si yow yàlla nee na nga muuru muuru woo loolu koy doy ni musiba waaye na nga boole ci critique ñuy muuru yow jullit bu góor bi su ñu nee na bàyyil si sikkim tubaab bi ne non xëy bàyyi sikkim c'est incorrect yow nga ànd ak tubaab bi d'accord yemal ci ànd ak tubaab bi boo xëyee wat sa sikkim waaye nag ñi yor seen sikkim bu leen critiquer waaye kon loolu la borom bi wax yéen a ngi ñuy critiquer te ñun defuñu lu dul jëfe li yàlla bëgg ci yéen li ëpp ci yéen ay faasiq lañu mbokk li yàlla nga ko waxoon juif ak chrétien yi mais malheureusement tey li ëpp ci jullit ñi tey dañ koy jëfee mooy mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne yow yonent bi juif yi léeg-léeg daan nañ la dikkal bu ñu ñëwee ne la ah ñun muhammad ñun gëm nañ ne yow ab yonent nga gis ngeen te suñu borom nee na yi jëg saboote moo tax ndax bi ñuy ñëw ñi ngi duggaale kéeféer bi ñuy génn ñi ngi génnaale kéeféer muy fen nañ ñaari fen loolee kon da ngay gis ne tamit mooy la nga xame ne nii suñu borom seddal na ko ci ñoom waaye mu ne bu ñuy jéemee nax jaami yàlla yi it yàlla mi xam kumpa moom kenn mënu ko nax moo tax mu ne wallahu aalamu bi ma yaktumoon mi ngi noonu naam
فترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا كفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
jazakallahu xayra suñu borom jalla wa ala mu ni wa tara kasiran minhum da nga gis lu bari ca ñoom yusaariuuna fil ismi ña ngay jëkkante ci bakkaar wal udwaani ak ak noono wa aklihimu suxt ak lekk ga ñuy lekk lu xaraam la bisa ma kaanu yamaluun ak bon lañ nekkoon di ko jëf lawla yanhaahumu rabbaaniyuuna wal axbaar ana lu teewoon mu tere leen seen yarkat ya ak seen borom xam-xam yu mag ya an qawlihimul ism ca seen waxi bakkaar ya wa aklihimu suxt ak seen lekk lu xaram la la bisa ma kaanu yasnaun ak bon la ñu nekkoon di ko jëfee wa qaalat alyahud yadullahi maglula yahud ya bon ya ñu nga naan loxo yàlla day dafa lemu gullat aydihim ñoom rek lañ lem seen loxo mooy njoñ dafa njoñ ko ca seen baat wala inu bi ma qaalu ca dañ leen rëbb ca wax ju ñaaw jooju ñu wax bal yadaahu mabsuutatan yàlla kay ay loxom lu tàllalu la yunfiqu kayfa yasha dana dépenser nu mu ko neexee wala yazidanna kasiran minhum dana yokk nag la ëpp ca ñoom ma unzila ilayka min rabbik la nga xam ne wàcc nañ ko jëme ci yow mu bawoo ca sa borom dana leen yokk tuxyaanan wa kufra ak bew aku kéefér wa alqayna baynahum al adawa noonu lañu sànnee seen diggante ak noonoo wal bagdaa akub mbañante ila yawmi alqiyama ba ba bis penc di taxaw kullama awqadu naaran lil harb heure bu ñu taalee sawara ngir xeex atfaaha allah yàlla subhanahu wa taala fay ko wa yasawna fi l ardi fasada daan nekk di dox ci kaw suuf nekk aji yàqkat wallahu la yuhibu almufsidin te yàlla day bëggul ña nga xam ne aji yàqkat lañu mi ngi noonu bokk suñu borom mu ni lay mandarga yi yahud mooy dañuy jëkkante ci lu bon di jëkkante ci noono di jëkkante ci lekk lu xaraam ak a bon lañ nekkoon di ko def bokk da ngeen di gis ne doomu aadama yi bari nañ ñu bari ci ñoom au lieu ñu xool la yàlla bëgg ci ñoom toujours ñi ngi seet ana ban modd mooy modd boo xam ne bu xew la te loolu dana gën a feeñ ci sunu xale yu jigéen yi ak seen waajur ya toog di leen seetaan mbokk jullit da ngay gis ne tey jii boo doon xool sunu xale yu jigéen yi masalan nga xool ci wàllu col gi sunu mbokk Cheikh Ndiaye xafisahullah nee na mas na fekkee fii ci usine benn cinéma benn xale bu jigéen sénégalaise ñëw wàcc sol pantalon waa cinéma bi ñoo ko yuuxu ba daa daw dellu seen kër xoolal xoolal lool de pour lan pour wane ne ah bëgguñu woon col googu ci jamono jamono yooyee léegi nag ñu dem ba léegi booy xool pantalon ci col yi gën a baax la bokk boo koy méngale ak col yu bon yi ñu sos gannaaw gannaaw pantalon ndax pantalon mooy góor ñi lañ ko doon sol jigéen ñi fekk si leen ci non ba boo xoolee ku mel ni Mariama Ba ba muy bind kiyam boobu une si longue lettre jamono jooju lay commencé tasaaroo ci jeune fille yi mu wax ci lu nekk mu wax leen ci critique leen pour ñu pour pour ñu bàyyi loolu ak ni mu bonee mais bu doon tey pantalon lu ñu sol d'accord mais gars yi na xam ngeen xale yu jigéen ñu ñu sol léegi ay lan ay fiseaux fiseaux yoo xam ne day muule seen yaram ni leen yàlla binde exactement am déet boo ko dandee da nga jàpp ci sunul dara loolee da ngay gis tey nga gis vingt jeunes filles yu ànd kat dix neuf pour cent yi loolu la ñu sol loolee mbokk mooy dem ci lépp muy kon bakkaar yi ñuy avancé di avancé di avancé te loolu xale bu jigéen baag yaay jëm bàyyi ci kër gaag bàyyi ba moom kër gaag ñoom ñépp ñoo ci bokk yem ñu commencé xeesal bi ñan ñoo ko commencé woon mooy jigéen ñu bon ñi di ko def koo gis xàmmee leen lañ leen di xàmmee may loolu mais ñu ciy jëkkante jëkkante ba léegi généraliser nañu léegi kay lii yéem mooy gis jigéen boo xam ne dafa garder teint naturel am loolu mooy yéeme léegi gis jeune fille bu dem ba mag garder teint naturel am mais ka xeesalul ma ngay leeral ma ngay nangam ma ngay nangam loolee mbokk nañu xam ne suñu borom bu ñu nettali juif yi fi ñu jaaroon yonent bi alei salaam dane fokk jullit ñi lañ fa mos a jaar ku nekk ci ñeen war a fagaru xëy na yow na am mag nga yu bari xëy na mucc nga ca waaye njaboot googu nga xam ne ñooy sa responsabilité fokk war ngay bàyyi xel ci ñoom borom boobu nag subhanahu wa taala ne lu teye woon sëriñ sa rabbaani yuun mooy koo xam ne dafa yor mbooloo di leen yar di leen jàngal di leen tàggat ahbaar mooy borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñoom amuñoo kontaan mbooloo mu ñuy yar waaye jàng nañ diina xam ko masala yu mag yi ñuy dem di leen ko laaj mu ñu ana lu teewoon bi ñu gisee nit ñi nekk ci jëf yu bon ak wax yu bon demu ñu teral leen ko te mbokk bokk na li gën a tumuranke ci société bi mooy kuy teralu bon léegi nit ñi kenn teretu leen lu bon lu bari lu bon ña waroon a teru lu bon boo demee seen njaboot ñoo koy jiite loolu kon fan la mucc di mën a amee waaye nañu xam ne day mbokk julit suñu borom yàlla lam defoon garantie mooy ña yàlla xamal di wax di tere di jajj loolee day dana tax ba suñu borom yàlla sax am lu mu leen cee seete amma bu dee nit ñaa ngi def lu bon ci kenn terewul lu bon yonent bi alayhi salaam nee na day mooy ñi ngi mel ne rek nit ñi nekkoon ci gaal am ñi féete kaw ñi féete suuf waa kaw ñoo am ndox waa suuf amuñu ndox waa suuf bu ñu bëggee ndox bëgg a dem ci kaw ba mujj ñu ne waaw waaw ñun nañ bëtt gaal gi rek ndox maa ngi ci suuf mu ne ñi ci kaw buñ toogee di leen seetaan ñoom ñëppay ànd labandoo su ko defee yow nga ne yaa ngi nekk ci jaamu yàlla baax nga am nga xam-xam waaye gis nga la nga xam ne moom nga njaboote nekk ci lu bon ca waxoo ca ëllëg bu yàlla dee jàpp yéen ñëpp lay bokk jàppandoo borom boobu nag subhanahu wa taala bàyyi loolu wëlbati ko wat ci yahud ya mu ne ñoom dañ ne waay yàlla dafa nay waay waaw da ngay ñaan ba sonn doo gis dara ci li ngay ñaan gis ngeen mbokk ku ku ku bàyyiwul yàlla ndax dana bàkkee neen mi ngi noonu loolu la dof ba doon wax dof bu ne ah jureen sonn yàlla sax muccul yaa ngi dee te mooy ku bañ ñu critiquer la da ngay sonn ndax nee na yàlla sax muccul comme ñu ne yàlla day dafa nay suñu borom ne ñoom kay la ñu njoñ seeni loxo ca mbokk suñu borom yàlla mu ne ay loxoom dafa tàllalu mbokk yàlla wax nañu am na ñaari loxo ñun dañuy gëm am na ñaari loxo waaye ndax dañuy xalaat nu loxo ba war a mel déedéet kenn du ko xalaat bari na ay mbir ci àdduna boo ko déggoon mën nga koo gëm mais tant que gisoo ko noo koy mën a misaal mënuloo ko misaal yi nga noonu tey loolu donte ne lu am la waa ji nga xam ne dafa judd gumba ku mel noonu boo ko bëggoon mu misaalal la li nga xam ne mooy oto wala xar wala mbaam mënu ko parce que déjà moom musul am contact ci loolu soo ko bëggoon misaal lan ndax rouge entre lu xonq ak lu weex nan la ko ab ki ki juddoo silmaxa nu mu ko mënee parce que musul gis loolu mais ndax day tax amul ah kay kon suñu borom yi ay melokaanam dañ koy gëm mais nu mel xamuñu ko loxo boo xam ne nee na da cee ñëpp asamaani juróom-ñaar ak suuf ndax loolu nit mën na ko imaginer déedéet mu ne kon ay loxoom tàll nañu mais nag mooy dépense nu mu ko neexee ca mbokk yàlla mooy wërsëgal waa géej waa jéeri yow ku nekk ku nekk mi ngi lay taxawal xamal ne yow doomu aadama rek chaque jour suñu borom yàlla sa yaram bi ay milliards de cellules waxuma des millions de ay milliards de cellules yàlla am na yum ca éliminer changé la yeneen yu bees loolee moo tax doomu aadama chaque dix ans boo comparé sa carte d'identité dix ans passé ak bi gis ci melokaan wu rëy yàlla mi ngi lay taxawu foo mën a toll oxygène bii ñuy noy ci jàkk ji indaale wuñ ko fi yàlla mi ngi ñuy jox guddi di ñuy jox bëccëg kon yaddaahu moom su moom su daan waaye nag du dépensé ni ngeen bëggee ni ko neexee lay dépensé. mi ngi noonu mi ngi may fàttali kenn ci ndaw yi jeunes sénégalais yi fi jóge woon dem Russie professeur russe bi na ko waaw yéen dégg naa yéen da ngeen bokk ñi gëm ñu ne yàlla am na mu ne ko waaw ñun gëm nañ yàlla am na mu ne ko wax ko mu dagg samay loxo. mu ne ko ñun yàlla bi ñuy jaamu kenn du ko wax mu def moom mooy wax ñu def yaa ngi dégg dégg nga wax bi ala kulli xaal suñu borom mu ne mooy dépenser nu mu ko neexee ay faalun li ma yurid lu ko neex rek lay def mi ngi noonu kenn du ko dicté dara borom boobu nag subhanahu wa taala ni alxuraan ji ngay wax day dana dolli li ëpp ci ñoom ak bew ak ko kéeféer ca mbokk kéeféer ñaar la ki musul dégg dëgg nekk kéeféer mi ngi ci lu bon waaye ki ko yées ki dégg-dégg ba pare lànk ko mooy almaghdubi alayhim borom bi nag nee na yahud yi nii laa sànnee seen diggante noonoo ak mbañeel ñi xam xam nañu Israël gi nga dégg ñu sonal suñ mbokk palestiniens yi mbokk noonu lañ noonoo seen biir soo demee li ñuy tuddee parti travailliste parti Likud premier ministre Isaac Rabin ndax arab yee ko rey déedéet juif yi seen bopp ñoo ko rey soo demee am na ñu ci tuddee ay orthodoxe ñoo xam ne ñoo seen layik yi ay noonu yu réy la ay kon am nañ benn intérêt commun bu ñuy feeñal ca mooy xeex Palestine waaye yahutu neen ñu noonoo lañu ñu bañante lañu seen biir suñu borom nee na moo ko sànni seen biir ba ilaa yawmal qiyaama borom bi nag nee na heure bu ñu taalee sawara ngir xeex yàlla fay ko ñi ngi tasaare yàq ci kaw suuf ca mbokk xam leen ni quatre-vingt-dix pour cent des guerres yi am de par le monde ña nga xam ne ñoo ko suuxat ca suuf mu yahud yi bon yi da nga noonu lobby juif yi nga xam ne tey jii la ëpp ci Amérique ñoo koy contrôler France ak feneen ak feneen lu ci bëri ci musiba ñoo koy taal ci kaw suuf moo tax ki leen xamoon rek mooy Hitler Hitler moom dafa gisoon ni juif kenn mënul collaborer ak moom képp ku muy jëflanteel pour nax la noot la kon leen rek lañ xam la la war a mën a def ak ñoom mooy éliminer leen boo xoolee jamono bi Hitler di éliminer ci ñoom lu jege 6 millions wóor na mën a juif yi matuñu woon 12 millions jegewuñ ko sax ca Hitler ñu ne faagaagal na ci loolu kon genn wàllu juif yi Hitler reyoon na leen ndax mbon gi nekk ci ñoom ca pourtant Hitler jàngoon alxuraan du jullit waaye li yàlla wax moom la remarque yas'awna fil ardi fasada mi nga noonu kan moo ngemb Karl Marx juif bu bon boobee kan moo ngemb la nga xamee ne nii ñoom Darwin ñooñu nga xam ne ñu fi ne athéisme pur et dur mooy yahud yu bon yooyu ñoo ko jël pas-pas yooyu tasaare ko ci doomu aadama yi ndax xam nañ ne pour ñu noot suuf il faut ñu teqale leen ak diine loolee kon mbokk alxuraan ba mu koy wax ëpp na quatorze siècle te ñooñu may wax ñëpp ci siècle bii ñu nekk ak bi ko génn ca la ñu feeñal seen bon yooyu muy woñu ne téere bii ñu nekk mooy téereb dëgg tant que jullit ñaa ngi ci ngoy duñu réer tant que jullit ñaa ngi ci ngay duñu jaaxle yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci ñekk gëm ca topp ko yal na yàlla delloo ndamal lislaam delloo jullit ñi ñu juboo ak seen boroom mu defal ñu àjjana suñuy wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal jullit moom day xam ne suufa si yàlla si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti place dong la jullit am droit tukki ngir jublu jaamu ji yàlla ca place ba place ba jëkk mooy masjidul haram nga xam ni ku fa julli benn rakka mel ne nga ko julli junni téeméeri junni rakka ñaareelu place ba du xabru yonent bi waaye mooy jàkka yonent bi nga xam ne ku fa julli benn rakka mel ne nga ko julli junni rakka ñetteelu place bi mooy masjidul aqsa ba nekk Palestine ñëw na ci ay riwaaya ni ku fa julli benn rakka mel na nga ko julli juróomi téeméeri rakka amma bu dul looloo jullit du takk mukk jublu ne maa ngi dem place sangam di fa def ak jaamuk yàlla lu dul ne ñetti place yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ñu ca lañ cay wax fekk ba ngay jóg jublu màggal place baa tax loolu mi nga noonu bu dee ne loolu moom am na nañu xam ne waa ji def loolu dañ naan ko tukki bi ngay tukki day tukki bi daa la wallahu subhanahu wa taala alam mi nga noonu bismillah waaw ay salaam di jàpp di galax nduku di dugal sa loxo sa gémmiñ loolu ku amul socc moo koy def mais la doon cosaan mooy da ngay soccu jàppoo borom xam-xam yi nag yenn yi ñoo ni ki nga xam ne moom amul lu mu soccoo mën na soccoo baaraamam doonte ne du ñëpp ci dëppoo waaye am na ñoo xam ne dañ ne boo amul loo soccoo mën nga soccoo sa baaraam waaye nañu xam ne daal bokkul ci njàpp jël sa baaraam di dugal sa gémmiñ lu dul koo xam ne da ngaa nekk foo xam ne amoo fa benn soccu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam man maa maa ngi laajte comme dama doon seetaan ay journal ma gis ñu sportif sénégalais yi joueurs yi ñu leen di ne foo àndul ak woor léegi ñu ne ñoom bu ñu woor ba koor gi jeex léegi ñoom lan mooy seen àtte boobu ki la wax ne foo àndul ak woor wax dëgg yàlla day kon ça veut dire que foo moo gën woor parce que yàlla santaane ñu ñu woor ñoom si na bëgg-bëgg santaane ñu fo ñu ne nañ bàyyi koor gi ngir fo ala kulli xaal loolu mbokk borom xam-xam du ko wax borom xam-xam du ko wax te boo xoolee borom xam-xam ñooñee ñuy jii ñi borom xam-xam wax nañ ñu gën a garaaw loolu téeméer yoon almuhim nañu xam ni ki yàlla may mu bañ a woor mooy koo xamee ni nii dafa dem ci ab tukki tukki boobee la ca borom xam-xam yi di wax mooy tukki la bu la dul tënk lu ëpp ñeenti fan ci nga wàññi la nga xam ne nii say julli la dog la nga xam ne mooy say koor la waaye bu dee loolu paase na da ngay matal say julli boo demee ba dal da ngay woor say koor maadaama tukki ba ëpp na ñeenti fan amaa nar a dem fenn un mois jàpp ne loolu yépp ngir foofu football kese da nga am nga droit bañ a woor loolee borom xam-xam du ko wax ay caaxaankat rek ñoo koy wax wallahu aalam naam
seet leen ma jaaxal Ibrahima ak Moussa maanaam li ma neex rek laay def def leen leen neex bi man su man li ma neex lay def su woowee dina nga xool ma jaaree waaw ndax loolu
waaw naam day firi rek ne yàlla mooy def lu ko neex ci ay jaamam sànni nañ Ibrahima ca sawara wa mu musal ko dara la ko ko ñu sànni ashabul uxduud ca sawara wa mu seetaan leen ñu tàkk ba dee mu jël leen yóbbu àjjana kon mooy def faalun li ma yurid ca kenn du ko laaj lu tax nga def laa yusalu amma yafalu wa hum yusaluun mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam asalaamaaleykum waaleykum salaam naam oustaz damaa seetlu si leen defal defal si jàkk bi avant avant salaat avant xayru mi leen ñoom yi day not day not lu yàgg lu lu bëree bëree bëree bëree ndax loolu lu lu lu lislaam accepte la wala
ay nodd yu tegaloo waaw ay nodd yu tegaloo waala kulli xaal loolu day lu ñu dab la loolu lu ñu dab la waaye la nga xam ne moo doon cosaan ca jamono yonent bi alayhi salaam nodd gu nekk benn nodd lay am julli gu ne benn nodd lay am suuf fajar fajar comme nit ñi dañuy nekk ci nelaw moo taxoon yonent bi alayhi salaam ne bilaal yow del jëkk a nodd yee nit ñi suñ demee nag ba xam ne fajar ji jot na ñu ne Abdullah ibn Ummi Maktum noddal pour wañe ne léegi fajar jot na te it rawatina loole da doon dimbali nit ñi ci wàllu koor ndax jamono yooyu montre xewul moo tax yonent bi alayhi salaam naan bu ngeen déggee Bilaal nodd man ngeen a jóg di lekk ka naan ba baa ngeen di dégg Abdullah nodd ngeen doog a arrêté amma lii am boo demoon suñu dëkk yële côté Louga ak yooyu da ngay gis micro bi dañuy teg rek bu suñ càmm ñëwee. yëkkati allahu akbar allahu akbar nodd teg dix minutes après suñ njaay ñëw yëkkati nodd suñ meng ñëw lu mat fukki nodd ak juróom-ñett da ngay quatre heures du matin ba six heures kenn du nelaw mbokk loolu mbokk mbir la boo xam ne dafa dab lislaam dafa dab lislaam waaye wax dëgg yàlla loolu lu jara bala wallahu subhanahu wa taala alam waaw xanaa ñu mujj ci mbokk bi rek insha allah waaw waaw innaka la tuxlifu l miaad day borom xam-xam yi dañ caa wuute am na ñoo xam ne ni nañu ca la bokk boo demoon ku mel ne Cheikh Ousaymin rahimahullah moom sax nee na ca la bokk waaye boo demoon ku mel ne Cheikh Nasir na Albani nga xam ne moom xadis ya nga xam ne moo rot ci loolu nee na amul benn xadis bu ca am innaka la tuxlifu lmiaad mi ngi yem ci lazi waata ala kulli xaal ak ñaan la soo yeggee ah fadila mooy ngëneel ngëneel ya nga xam ne ni yàlla moo ko teg ci kaw mboolemi mbindaafon yi daje yowmal qiyaama yonente bi alayhi salaam dafay am am ngëneel ci seen kaw su ko defee boo yemee ci waxta baax na boo ci dollee léeg-léeg innaka laa tuxlifu l-miiaad it loolee di ngay gis ne dara nekku ci yal na yàlla jagleel suñu yonente al wasila yal nañu boole ca ñuy dagan mu ràmm leen yal nañu boole ñuy dëkk ak moom firdawsil aala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain